jërë ngeen jëf mbokk yi tey ñu dalal euh, Serigne Moustapha Mbaye euh, di borom xam-xam di yëngu ci wàllum euh, faj Serigne Moustapha Mbaye bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. auzu billah bismillah inna waliyallah rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokki julli ñu ngi leen di si ci nuyoo bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba lépp lu mu naan liggéey Serigne Touba mu àggale ko si sa góom doon ànd ko ñun ñun taalibe yi. jërëjëf euh, sëñ Moustapha nuyoo bi am na solo macha allah euh, sëñ Moustapha wax naa ko ci bi ma ubbi da ngay ci wàllum euh, faj ñu bëgg a tàmbalee rek ak tëju lan mooy waral doomu aadama bi tëju ak bu tëjoo nit ki nan lay xamee ne dafa tëju. bisimilah doomu aadama moom bu tëjoo. dana yomba xam lépp lu mu yóot rek du si jot lépp lu mu yaakaar du si jot waaw doomu aadama li waral taju na si doomu aadama mooy taq-taq yaram ndax yaram day taq ma ko la koy jox si misaal rek si bool boo xam ne si dafa taq ripp doo si xeme ma def aw ñam waaye bu setee moom foo ko gisee rek sa xel si def si ne noonu la doomu aadama mel waaw tëju nag waaw tëju nag doomu aadama bu tëju bu ñëwee bu ñu jëflantee quatre jours incha allahu rabbi taala lu nekkoon si yaramam dina dañ. donc kon ku tëju ci ñeenti fan nga waaw ku tëju si ñeenti fan rek laa koy tëji bu soobee yàlla incha allah. Mm-hmm. Eh, waaw loolu mooy waral loolu tamit mm-hmm. buntu boo fëgg mu tëju dëgër lool ba nga jàpp ne leneen la ba nga jàpp ni dan dan daa liggéey wala dan daa def dara te fekk na da ngaa tëju rek waaw loolu lay doon Euh, sëñ Moustapha ku la soxla ci numéro yan la jotee ak fan la lay fekk. ku ma soxla nag adresse bi bi mooy Touba Darou Minam muy 78 470 11 03 wala 76 139 00 33 adresse Dakar bi mooy parcelle unité 1 jumaay unité 1 ji parcelle en face kër gi. mu nekk lu am solo euh, ginnaaw tëju képp koo tëju tamit euh, bëgg ngaa ubbeeku ubbeeku. Mhm. ku ko bëgg ñëw ci yow nan lay demee. ñëwee. buñ jëflantee ni ñu jëflanteek doomu aadama yi rek bu soobee yàlla incha allah rabbi taala di nga ubbeeku bu baax a baax ba yëg ni ubbeeku nga incha allah bu la joxee liñ lay jox. sangoo mm-hmm. wala lu ñuy lay jox nag moom lu sangoo lay doon rek waaw càngaay lay doon traitement boo xam ne da nga koy sangoo dix jours boo ko defee rek incha allah rabbi taala am na yu muy àndal nag boo ko defee bu soobee yàlla di nga tijjoo lépp loo yor di nga si jot te di nga tijjoo bu baax a baax. fan. waaw ah. eh, koo xam hmm. hmm. waaw macha euh, kaaraange waaw kaaraange tamit lu baax si doomu aadama la ndax boo ubbeekoo te amoo kaaraange tamit du baax. waaw ku bëgg kaaraange tamit boo ñëwee am na ndomba gu may liggéey. waaw ndomba lay doon. Hmm. ndomba kaaraange boo xam ne si set gaw am. bu yàlla moom mu la ko liggéeyee am na yu muy àndal si biir nag ba nga takk ko incha allah rabbi taala di am kaaraange lu jugewul waaw dina aar si lépp nag muy liggéey muy kortu muy lépp loo xam ne si waaw day aar sax kortu lépp da koy aar waaw incha allah ko soxla rek bu ñëwee si dina ko am joxlaat waaw accident daa am spécial ndomba ndomba goo xam waaw ndomba goo xam ne si accident la ak pour ak pour kaso waaw ndomba googu mooy loolu boo ko takkee doo accident doo dugg kaso yàlla dina la musal si takk der yi mm-hmm. kaso doo accident voilà mm-hmm. damay yëngu si loolu mm-hmm. pour boo bëggee visa boo ñëwee bu ñu jëflantee bu ma la joxee li ma lay jox ba nga sangoo ko ba cangaay li mat nga am rendez-vous boo demee boo déposé bu soob yàlla bu la joxee rendez boo demee na jox la sa visa incha allah. est-ce yu bari mënumaa sax di ko lim bari na lool sax. Mm-hmm. waaw ñoo xam ne ñoo ngi fii. Mm-hmm. ñoo xam ne si visa Europe visa Amérique ak visa bu mu mën di bëgg rek bu demee dina leen ko jox incha allah. kon daal ku bëgg euh, ñëwee bu gisante ak rek incha allah aajum dina faju incha allah. waaw bu fekkee tamit ku ne bitim réew la nu mm, ami kayit di renouveler say kayit nu nu bloqué ko téye ko lu mat un an wala deux ans boo ñëwee incha allah bu ñu jëflantee incha allah dina la jox say kayit bu fekkee tamit ku dem la soo ko déposé kayit bu ñu jëflantee tamit bu ma la defalee li ma lay defal boo déposé incha allah say kayit di nga si jot balaa yàgg du yàgg sax incha allah. waa mm-hmm. mm-hmm. si diir bu gàtt daal. Euh, gàtt nga jot sa kayit incha allah. ndax daa bari ñoo xam ne si dañuy bloqué seen i kayit dañuy renouveler ñu téye seen i kayit du leen tontu ak ñoo xam ne si amagun kayit dañoo déposé pour jot seen kayit ñoom ñëpp bu ñëwee incha allah seen dina faju mu dama koy dugg kay dama koy dugg xalwatu nag day ñetti façon xalwatu une semaine bi ak bu quinze jours bi ak bu un mois bi hmm? waaw loolu nag ay mbir la hmm. ay mbir yu ne waaw yooyu mbir yu baatin la yoo xam ne yu nekk si biir la ñun ñu koy dugg ñun ñoo ko xam mm-hmm. incha allah waaw bu ko soobee yàlla ku ko soxla bu ma ko dugalee aadoom aajoom ju mu di am rek incha allah dina saafarawu mm-hmm. bu soobee yàlla incha allah. da ngay da ngay seet wala. waaw damay seet kay damay seet. Mm-hmm. waaw damay seete kurus ramli ramli si suuf damay seete kurus damay seete tamit téere waaw damay listixaar tamit na may waaw damay fanaanoo mm-hmm. euh, gis nañu euh, euh, mm-hmm. waaw ku bëgg borom kër soxna su bëgg borom kër xam nga loolu dafa bari léegi nag mm-hmm, am na soxna yoo xam ne si dañuy dañuy am faru rab daanaka ku leen bëgg ban def si yaakaar ba war a ñëw nu nu dem nu dem loolu far rob da koy def waaw du ñëwaat waaye bu ñuy bu ñu jëflantee bu soob yàlla ku ñëw rek incha allah dina toog te dina dina def farata waaw bu dee suñu mbokk góor yi tamit noonu encore ku si ñëw bëgg bu soxna bu ñëwee incha allah am na yu ñu lay jox nga def ko boo ko defee bu soob yàlla di nga am soxna su lu gaaw te soxna su baax incha allah. soxna naa ku ci dugg euh, waaw soxna moom boo siy dugg da nga koy seet moo oto ak kër ñoo yem yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ko kër ak oto ak soxna da nga koy xool ba méngoo ya nga soog ko def ndax mën ngaa takk soxna soo xam ne si seen vidéo àndut te la nga doon am as néew bu ñëwee dootoo ko am te loolu baaxul da nga koy xool ba noppi soog see dugg incha allah. am loo xam ne day euh, waaw dama koy def tamit mm. loo xam ne si moom mm. boo bëggee jubóog sa borom kër. Mm. jubóog moom te loo ko laaj mu jox la ko. yooyu yëpp boo ñëwee tamit bu ñu jëflante. waaw dina yitteel mbokki soxna yi bu baax a baax lépp lu mu bëgg lépp loo bëgg si moom bu soobu yàlla dina la ko defal incha allah. Ah. Mm-hmm. Euh, waaw. waaw euh, waaw yor naa si ay saafara wax dëgg yàlla yàlla suñ borom euh, suturaal na ma si ndax am naa ñu ma si jëflanteel jëflanteel naa si jigéen joo xam ne si fay na sëy na fukki at ak borom këram mënul am doom waaye ban moom jëflantee incha allah bu ma ko joxee ma ko jox si diir bu gàtt ñu ko boo jaxasoo sa borom kër incha allah rabbi taala jëlee na sa euh, ëmb incha allah yàlla may na ko gone bu dee góor tamit noonu daa am nun lay jox loo xam si da koy sangoo raxas sa sàkkara bu soob yàlla incha allah dinga am gone si kàttanu suñu borom. jërëjëf euh, waaw maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di rafet teewaay bii. teewaay bi waaw waaw euh, waaw jaaro bi jaaro bi ñaari façon jaaro la am na jaaro boo xam ne si pour aral la boo ko takkee moom si kàttan suñ borom suñ borom dina la may alal sag dund am jaaro boo xam ne si tamit pour day défendre dalay défendre si lépp loo xam ne si lu bon la ak lu aay te dalay xëccal lépp loo bëgg dala koy xëccal nga jot si si lu gaaw a gaaw incha allahu rabi taala waaw ñu ne si bitim réew daanaka lu ëpp daanaka mm. waaw diaspora bi laa liggéey liggéeyal muudu muudu yi incha allah waaw. waaw xam xam bu baax a baax. waaw. waaw maa leen nuyu di leen siyaar di rafetlu teewaay bu baax a baax a baax di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla defal leen sutura ak tawféex ak yërmande ba fa leen bëgg àgg suñu àggale leen fa ko gërëm Serigne di euh, numéro bi sëñ Moustapha rek euh, nga fàttali ko numéro téléphone. waaw numéro bi 78 470 11 03 wala 76 139 0033 numéro yooyu ku jot numéro waaw bu dee Touba Touba Darou Minam mooy adresse bi waaw bu dee Dakar nag parcelle jumaay unité 1 ji en face kër gi. kuy ñëw rek boo wootee yomb booy wootee yoon gën a yomb